Seydi Sow ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maaleykum salaam tey ñuy fàttali ne ñu ngi màggal journée de l'écrivain africain fii ci Sénégal ñu fas yéene ko am ci diiru euh, juróomi fan yow Seydi Sow nga doon secrétaire exécutif bu association des écrivains du Sénégal bokk tamit ci comité d'organisation ak ci jury bi nga doon coordonnateur ñaari entité yooyu yëpp euh, Seydi Sow tey jii ñu bëggoon a xam. nan ngeen fas yéene màggale bii lépp euh, xumbute euh, te jamono ji euh, ñoo ngi ci mbas mi. waaw xam nga waaw xam nga bés bi dafa nekk ci ay anam yu doy waar. Mm. ndaxte xam nga addina bi yëpp mu ngi jànkoortal ak mbas mi. Mm-hmm. rawatina ci réew mi même su dee taxawaay su réew mi taxawaay bu war a sargal la. Mm. parce que mbas maa ngi wàññeeku ci ñun. mais terewul du ñu wàññi wàññi suñu loxo. Mhm. lu ñu war a def li ba tey dañ koy def surtout ci wàllu fagandiku ba mbas mi war a wa du mun a jaar ci ñun wàlle moo tax ñu ne ñun écrivain yi. Mhm. dañ def suñu journée de l' écrivain mais dañu jël lépp lu ñuy wax mesure barrière lu ko docteur yi waxee. Mhm. noonu lañ koy defee. moo tax ñu tënk suñu journée bi au lieu pour gën a gudd dootul gudd. quatorze heures rek dañu tasaaroo. te dañoo wax ne nit ñëpp ñuy ñëw dañu am seen masque seen bopp. ñun nit ci suñu bopp wut nañu ay masques yu doy yu doy yu doy ak gel hydraulique pour ñëpp koo xam ne ñooy nekk suñu invité. bu hmm. ñëw ñu jox la say masque jox la say gel hydraulique. te buntu bi tamit doo ko mën a jàll te amuloo masque loolu yëpp ay gestes barrières te distanciation bi tamit dañ ko def parce que jo génn nañu ci ay ay saal yi dañu nekk ci suñu cour bi nga xam ne dafa gën a yaatu. Hmm. place bu nekk dafa koy jox turam ak tur nit kuy jox ci kuy toog ci place bi. invité yi bopp dañ ko wàññi donc loolu moo tax. maanaam yooyu la journée bi di am. justement ci invité yooyu lee dañoo doon faral di gis ci euh, ndaje bi ay euh, écrivain yu jóge euh, fépp ci àdduna bi Afrique rawatina ñëw teewe fi ndax atum ren loolu mën nañ koo xaaranti waaw dañuy ñëw mais même ñooñu tamit dañ koo wàññi hmm. soo gisoon ci temps dañ doon indi ay juróom fukk ay juróom fukk écrivain yu jóge fu nekk hmm. France bitim réew ci Afrique yëpp mais ren mbas mi tax na ba loolu mënatuñu ko. ay hmm. fukki nit rek la ñu écrivain la ñuy indi. te fukki yooyu mooy d' abord ñi nga xam ne ñoo ñu jege ci wàllu Mali Guinée Gambie. Hmm. ak euh, Mauritanie. Euh, euh, ñi nga xam ne ñoo ñu jege vraiment ñoo nekk suñu suñu suñu am di jàmm ci sous région bi. Hmm. ak Côte d'Ivoire ak ñeneen ñoo xam ne ñooy Gabon ak ñoo xam ne ñooy Congo d'ailleurs Gabon mooy invité d'honneur bi. ñii ñooy nekk ñoo xam ne ñooy ñëw bokk ak ñun ci journée écrivain bi. Mhm. ñu jël ki kii ku mel ni ku ñuy wax Koumanthio Zeynab Diallo ñu def ko marraine jagle ko journée bi parce que Koumanthio ko jigéen la boo xam ne bu bu bu yàgg xeex la ci biir écrivain ci biir pen lu ñuy wax ni pen mooy mbootaay bu dajale écrivain yëpp. Mhm. ci biir àddina bi moom am na ci woy boo xam ne bu bu am solo la jigéen boo xam ne vraiment bu moteur la boo xam ne dafa doo yàgg xeex yàgg ci pen bi. te suñu xarit la saa ñu defee eh, journée écrivain day ñëw bokk ak ñun. Mhm. ñoom moo tax ñu ne ko tey jii bi yoon dañ lay jagle journée bi ñu jox ko Guinée moo tax journée bi turam lañ ko jox mooy Koumanthio Zeynab Diallo mu nekk Guinéen. Mhm. malheureusement du mun a bokk ak ñun xam ngeen Guinée tey ci temps yi nekkuñ ci anam yoo xam ne mooy anam yu yu gën. Mhm, parce que am élection yi am ay fitna yu bëri yu nekk foofu moo tax moom ci boppam munul génn Guinée ñëw mais moo ñun ci xel ak ci xalaatam yëpp mu ngi fii. incha allah rabbi nga wax ko ci say biir wax Bénin mooy euh, pays invité d'honneur euh, lu waral ngeen tànn Bénin mu doon invité d'honneur ak lan la euh, ak lan la Bénin Gabon plutôt Gabon, Gabon, merci ak lan la Gabon apporté ci wàllum li nga xam ne mooy xalima gi ci Afrique ak it lëkkaloom ak Sénégal bindkat yu xarañ ci biir Gabon. Mm-hmm. yoo xam ne saa yu ñu tasanteeg ñoom dañ leen di sargal. mais loolu rek taxul. Gabon ay bindkat yooyu suñu suñu suñu suñu doomu ndey lañu suñu doomu baay lañu. Mm-hmm. parce que saa yu ñu tasante ay jàmm ak salaam mooy nekk suñu diggante. saa yu ñu organiser Gabon de ñëw bokk ak ñu ci suñu organisation. maanaam ci ñu ñuy nu ñuy feetee journée écrivain bi. Mm-hmm. mais rawatin tamit ñaari dëkk yi muy Gabon ak Sénégal. mais d' abord ñoo jëlandoo indépendance presque ci ci anam yu ci même anam bi ñoo bokk colonisateur mooy France et ensuite président yi seen bopp. Mhm. ay xarit lañu ay ay demlantoo dikkante la depuis ci taawu Omar Bongo ba tey jii ci président bi nga xam ne moo ko moo moo wutu papam bu mhm. nekk bi foofu donc ñun loolu yëpp tax na ba ñu nag Gabon benn lañu benn réew la même su dee distance bi am na mais xel yi benn lañu xol yi benn lañu. Mhm. ñoo tax ñu invité leen te ñun loolu la ñuy def. chaque fois su amee génétique bi dañuy seet benn réew ci biir Afrique. Mhm. bi nga xam ne ne bii vraiment ràññee nañu ko ci wàllu démocratie ràññee nañ ko ci wàllu gëm ñi nga xam ne ñooy jëndkat yi ak euh, tamakat ak taaskat yi ràññee nañ ko ci wàllu culture dañu jël réew moomu def ko mu nekk suñu invité d'honneur. gis nañ ne euh, chaque édition dafay am ay thèmes spécifique yi nga xam ne écrivain yi fa daje dañ koy waxtaanee ñi ki amal tamit ay colloque te yan yi jafe-jafe ngeen fas yéene yëkkati amal ko wala waxtaanee ko ci euh, ndaje yooyu. waaw ren bi mooy pandémie et littérature. Mm-hmm. la riposte des écrivains africains face à la Covid 19. loolu mooy suñu thème. soo ko gisee thème boobu mais du thème boobu rek thème boobu dañ koy jagleel benn fan mooy mardi bi dix day am colloque boo xam ne foofu lañu faram-fàcce lépp luy nekk ci ci ci mbas mi mhm. maanaam nu mu ñëwee ci nit ki ak ñi nga xam ne nii moom la mbas mi amee nan lañ leen di accompagner psychologiquement ak réponse communautaire bi ci wàllu mbas mi mhm. loolu lañ koy faram-fàcce ci journée mardi bi mhm. mais ensuite day am ñaari yëpp yoo xam ne yu am solo la mooy day am le pen bi mooy parce que association yëpp dañuy taxante foofu association yi nga xam ñoo ñaan naan ko pen pen mooy bindkat ak euh, ñu di def journaux même yéen bokk ngeen ci pen bi da mm-hmm, mm-hmm. bu rëy la boo xam ne képp kuy xalaat rek di bind bokk ngeen ci dañuy jël pen boobu tamit seet ñun ci suñu bind lan la ñuy def ci pen bi lan moo doon activité yëngu-yëngu pen bi ci biir at bu ja jàll bi ak lan mooy war a nekk yëngu-yëngu pen ci at bii di ñëw bi mm-hmm. deux ak lan mooy jafe-jafe pen yu nekk ci biir Afrique mais dañu gis ne PAWA PAWA tamit association bu mag la boo xam ne Sénégal daf ci am rôle bu am solo ci biir PAWA boobu. Mhm. xam ne PAWA boobu kenn moo ko yore woon yore bu baax mooy atuki okaay mais yàlla daf ko jëlee fii te bu bu bu ko yàlla jëlee fii PAWA dafa am ay problème moo tax ñu ne dañuy xool problème yooyu nan la ñu fexe ba fexe ba PAWA jógaat ci ay tànkam mun a jouer rôle bu mu war a jouer bi ci biir Afrique parce que moo yore mooy association boo xam ne. ñëpp dañ fay bokk mooy ñi nga xam dañuy wax arabe ñu nga foofu ñu ngi wax anglais ñu nga foofu ñu ngi wax portugais ñu ngi foofu ñu ngi wax français ñu ngi foofu donc loolu association bu mel noonu. Mhm. mun la ko bàyyi noonu rek mu demee noonu. ensuite xam nga forum mondial de l'eau fàttoo naa la ko wax ci sànq ci sama sama sama sama sama kàllaama mhm, nasaraan. bi nga xam dañ ko forum mondial de l'eau. Mhm. waaw forum mondial de l'eau Sénégal moom moo koy abrité. Mhm. dañu ne woon deux mille vingt et un koy appliqué. Mhm. mais président ak bas bi moo da ko toxal ba yóbbu ko deux mille vingt deux. Mhm. mais terewul dañuy waxtaan ci programme mondial de parce que association des écrivains dañ ko boole bu baax a baax ci programme mondial de boobu ci wu ci ndox amoon ndox dafa am solo ci suñu gox goxaan surtout que ñu si Sénégal bi nga xam ne am nañu ay jafe-jafe ci ndox. Mhm. donc loolu tamit dañ ci waxtaan bu baax a baax. d' accord euh, mu daan euh, ñu doon faral tamit di gis ay concours euh, ngeen di initier ay prix ndax atum ren. am na ren ren am na ñaari fànn boobu tamit c' est naa ko am na ñaari yëpp mooy am na ay. ay ay kii yu ñu jagle ay écrivain maanaam ay ay ay ay lijaasa mm-hmm. ay ay ay distinction yu ñu jagleel ay écrivain ñu mm-hmm. leen koy jox ay jagleel ko teral leen ko mooy ci wàllu bind mooy ci wàllu taalif mooy ci wàllu théâtre mooy ci wàllu conte ak même ci wàllu euh, euh, nasaraan mm-hmm. ñu bind ci wolof ak ñoom seen am na ñoo xam ne ne ko dañ leen woo sargal leen ci kanamu ñëpp parce que gën def nañ ci lu baax a baax lu xarañ mais def nañ tamit xam nga euh, covid bi bu mu ñëwee am na lu ci littéra am na euh, concours bu ñu def jagle ko xale yi. Mhm. xale yi nga xam ne ni ku dem ba booru vingt ans ba ak vingt cinq ans mooy de vingt cinq ans la ñu jagle thème boobu. Mhm. ñu war a jongante ci biir euh, concours boobu ñu wax seen gis-gis ci Covid bi ci mbas mi wax seen gis-gis wax nan la ñuy xalaat ci mbas mi ak lan mooy seen mébét ak seen xalaat ci mbas mi loolu tamit dina am am na ku ko gagné. ndax jury bi délibéré na ba pare jury bi dafa délibéré ba pare. waaw délibéré ba pare dañ ko wax programme résultat yi tey jii incha allah rabbi. d' accord ñu wax ci jafe-jafe li nga xam ni moom mooy euh, écriture maanaam livre industrie du livre fii ci Sénégal euh, ndax mën nañ koo xam. waaw jafe-jafe yu bëri na. Hmm. mais mun naa ci am yenn yenn rek. d' abord bu jafe-jafe bu njëkk bi bu tar bi bu njëkk bi. Hmm. mooy su bindee du xam ne baax na wala baaxu parce que euh, soo demee ci yenn réew yeneen gox yi soo bindee. su baaxee ñu ne la baax na su baaxul ñu ne hey li nga bind baaxul dara awul yoon. Mhm. su ko defee yow di nga xalaataat di ngay bind. mais ñun dañuy bind rek mais doo xam ne baax na wala baaxul loolu nag pour am littérature bind boo xam ne bu am pour la am fayda la. Mhm. il faut ñu am koo xam ne dina sargal wala koo xam ne dana déedéet fii yàq nga fi fii damm nga fi. Mhm. loolu mooy am solo deuxième élément mooy espace bi nga xam ne war nañ ko def téere amu ko ma soo gisee téere euh, politique bi dafa occupé ñëpp suñu réew politique bi mu occupé yëpp. moo jël journaux yi moo jël rajo yi moo jël télé yi ba nga xam ne téere amul ci place. Mhm. te war nañu fexe ba politique bi mu xejal téere bi tuuti parce que téere mooy wasaar xam-xam téere mooy wasaar aada téere mooy wasaar suñu histoire donc téere boobu war na am place mais loolu malheureusement amagul place boobu bu war bi te ensuite ñi nga xam ne ni tamit parce que téere dafa am ay ay ay kuréel yu bëri yu nang nank téere am na benn kuréel boo xam ne mooy jël téere wasaare ko ci biir àddina bi kooku amagul ci biir Sénégal boo xam ne am na doole pour jël téere yi wasaare ko distribuer ko soo gisee taw ci wàllu njaay ak promotion tamit librairie yi tamit vraiment duñu def part benn téere ñi euh, nga xam ne ñoo nekk Sénégal su ñëwee dañ lay jël benn wala ñaar moom la la koy jëlal te fu mu ne koy tegal fii du nekk fenn koo xam ne dafa fës ba ñëpp di ko gis ensuite am na lecture mm-hmm. maanaam jàng mm-hmm. xam nga dée rek jàng bi mooy téere bi il faut ñu jàng ko mm-hmm. soo bindee téere tey kenn du ko jàng amul solo il faut nit ñi jàng ko malheureusement Sénégal bi bibliothèque yi bëriwuñu bibliothèque yi bëriwuñu soo demee ci régions yi amul bibliothèque mhm. soo demee ni même niveau national ñu wax bibliothèque nationale bibliothèque nationale ba léegi xam nga bibliothèque bi kañ lay ñëw donc ñàkk am su ñuy béb jànge ay livre nekk na problème livre ak yeneen yeneen yoo xam ne am solo la tey jii nga foog ne lan mooy euh, solution bi ngir ñu mën a corriger euh, li nga jàpp ne défaut la woote waxtaan bu yaat ndaje bu yaat livre woote ndaje bu yaatu ci livre seet livre bi lan moo koy suqali lan moo koy yóbbu ci kanam seet nan lañ koy defaree muur yi nan lay koy gën a baaxee prix bi nan lay gën a wàññeekoo parce que tamit loolu tamit problème su dee li ñuy jaayee livre bi ay dix mille francs ay douze mille francs la ki nga xam ne kii a am problème dépense du mun a ñëw jël loolu ci kan la ci yéen écrivain yi la wala ci euh, maison d'édition mais ci ci ci production libre bi la moo batee moo cher parce que lépp luy dugg ci livre bi dañ koy taxé te taxé ko wuñu ko livre bi ak naam su su paree nee nañu amatul impôt mais lépp luy dem ci livre bi maanaam papier bi encre bi ak yeneen jumtukaay yëpp dañ ko taxé. kon tey lan mooy pertinence fond bi. mooy. pertinence fond bi. Euh, mooy fond bi ñu jagleel euh, bind gi édition gi lan mooy pertinence. bi ah, bu dee waaw production bi dafa cher. fond bi fond bi France dañ koy jàngale ci édition. Mhm. am na fond bu ñuy wax fond kii boo xam ne bindkat yi mun nañ ko euh, mais même fond boobu bariwut fond édition soo ko xoolee ay six cent cinquante millions la te xoolee soo xoolee éditeur yu nekk yi fi ëpp nañu téeméeri éditeur te kooku te éditeur bu nekk am na euh, livre yu nekk ci biir dëgg la Restons Livres mu ngi def liggéey bu am solo ñu ngi ci euh, sargal vraiment suñu xarit Ibrahima Lo mhm. boo xam ne téeram kenn waxul waxutu ko des euh, vraiment di accompagner bu baax éducateurs yoo xam ne xarañ nañ ci biir Sénégal bi mais euh, fonds bi gën a mun a yokk président waxoon na dina ko yóbbu ba un milliard. Mhm. su ko defee fonds boobu mun a mun a vraiment fexe ba livre yu bëri du mun a génn kooku benn la. deuxièmement tamit résidence d'écriture yi tamit war na am solo war nañ koo suuxali pour que eh, eh, eh, écrivain bu bëgg a bind. Mhm. ñu may ko ay fonds mu dem beru pour mun a bind xam nga fii bind ci suñuy. réew mi dafa jafe. Mhm. parce que euh, nit ñi dañ lay dañ la duñ bàyyi nga bind. mais soo demee euh, ci beneen réew nga xam ne kenn xamula mun nga mun a fexe ba bind foofu foo boobu yëpp dañu jagle loolu. mais ñu ngi saluer vraiment accompagnement au ministère la culture ñu ngi ci def jéego yu baax am solo ñu koy saluer di ko sargal di saluwaale ministre mu delluwaat ci yow uh-huh, yow it ñu lay jaajëfal bu baax a baax di Sow ñuy fàttali ne yaay secrétaire exécutif bu association des écrivains du Sénégal bokk ci comité d'organisation bi ak jury boobu nga xam ne ne nga dina délibéré tey doonoon tamit grand prix du président de la République pour les lettres jaajëf.